maa ngi gërëm ñi fi teew médecin chef région bi nag ci sama qualité premier adjoint maire de Dakar chargé de la santé et de l' action sociale liggéey nañu lu bëree bëri ci commencement bi mu taxawu Médina ñi fi njëkk a feebar guddi yooyu moom bokk na ci ñu gis mu taxaw bu baax ba mu malade yooyu nangoo ànd ak ñun dem ci fi ñu leen doon yóbbu donc ndey màgget jàmbaar la sunu médecin chef bi nga xam ne moo yor district bi tamit bi mu ñëwee léegi xam ngeen ni foo dégg yaa ngi dégg Dakar Sud Dakar Sud

comité bi nga xam ne ñoo koy accompagner Ibrahima Traoré di gërëm journaliste yi di gërëm chef de l'État ndaxte bu ñu demee ba ay réew comme ñun di ñaan Sénégal quelques doses pour commencer ñu leen di may ay dix mille ak cinq mille vraiment bu ñu defoon li Macky Sall def am ko ànduma ak moom ci parti ki lenn wante day jàmbaar ci wàll wi ñu ko ci encouragé naan ko jërëjëf di ko wax tamit ni nam ñu ko digale woon ci accompagner population bi sur le plan social ñu jël xaalisu mairie bi di ko jëndee ay denrées di leen jox

lii yàlla laa ñu dimbali ñu teel cee jot kon nañu jàppale ñu koy liggéey te yërëm leen respecter distanciation sociale yi teel a ci bu disponible kenn bañ a xaar ku la ko wax ñu aar sunu mag ñi tamit ba ñu xëccoog ñoom ñëkk a bàyyi mag ñi vacciné vacciné wu ñu soog ciy topp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam